di nuyu partout dans le monde rawatina Bargny diaspora bi ak képp koo xam ne yaa ngi doon ab Bargny waa ne si Europe bi ak képp koy ab Sénégalais nekk si biir Europe ñu leen ñaanal tukki métti ñu leen ñaanal yàlla suturaal leen ba lépp ñu fay liggéey ñu mën ko indi seen njaboot maa ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi si diaspora rek di di daan sa doole te di Sénégalais ak képp koo xam ne yaa ngi si diaspora bi di jullit rek ñu lay ñaanal ñu siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di masawu suma encadrement di leen maasaw xam naa dañ nañu ay coono man ñi topp sama gannaaw ñoo ma gën a sonn fuuf comprendre ñoo jël seen alal di si ñax seen lépp comprendre kon man aw ma sama samay fans man aw ma seen fay déggoo ma man aw ma man samay fans man aw ma seen fay lu dul di leen ñaanal parce que ñooy jënd seen tiset ñoo jënd seen billet fii kenn mosuma fi may ay billet comprendre kenn mosulaa may billet non non kenn mosuma may billet benn nit daal moo mosul ak li lay topp ci mbooloo yëpp déggoo ak nit mosuma may billet bu dul Mamadou Sy comprendre nga te kooku tëngeej la dëkk comprendre nga ñene billet cent mille billet lii billet trois mille mu ne ma dinaa jënd cent billet comprendre nga xam si biir ñi fii baa ko ginnee sax gars yi tas man maa tafaa gay deux maa ngi jënd trois millions ay billets jënd ko deux mille ñëw di ko jaayee su may fan sa mille francs pour pertaat mille francs jëlaat mille francs mille francs yi jënd kaat ko ay billets ba trois millions yi ji tak li may wax nii sarrafay xam na li wax bu baax combat boobu dama ko bëri si vide bi ma paree desew ma dara ni day ñëw sax ma amel ka bor muy daw di ñëw ma nëbbu comprendre kon làmb dafa métti su may fan sa nag maa leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal leen wax ne lépp lu coincé am ñoom la mag yu bari ñi tamit aw ma seen fay ak kilifa yi nekk fii man aw ma seen fay am maire yi xale yi billaay aw ma seen fay. ñu gis ne combat bi xawoon ma yàgg depuis daaw la woon wala daaw jéeg ba léegi mu taxaw ñu ñëw ba ñu waa jib si Covid bi ñëw. ngeen toog di muñ di entraîner ba fi mu toll nii euh, li gars yi di wax rek loo bañul loo bañul mu yegg bul ko jàppal bés daanaka bés bi ñëw na wàccaay li naka la demee. waaw wàccaay bi métti rek métti rek mais sant yàlla xam nga yàlla moom lu mu la natoo rek moom mi la ko natoo dina la suturaal comprendre la yàlla mi ñu natoo làmb dinañ suturaal ko waaj bi métti na mais tey bu ma gisul woon ku mel ni Balla wala gisuma ku mel ni Moussa Gueye wala gisuma ku mel ni Ibrahima sek comprendre nga ah ñi xam ne dañuy nekk si ginnaaw di jàpp te bëgguñu sax ñu tudd seen tuuf kon day métti comprendre nga di nuyu suma staff bu baax di nuyu ñi xam ne ñoo yor si wàllu musique bi yëpp aw ma seen fay li mu ma kii bàyyi kii ñoom ñëpp. mais la mën dugal ci double moteur ñu gis nga jógee ci ki nga xamante ni mooy Diène Kairé euh, euh, yàlla dogal ngeen match nul nga jóge fa dal ci double moteur la moo dugal ci double moteur. waaw xam nga làmb moom mooy li Père Max wax rek dimanche bu la raw rek. yaa ngi perte comprendre nga combat la kon combat yi weesu parce que adversaire mënoo kaa jël bu pare di nga négliger mënul nekk bi bokk si combat ma gën a fonk si combat yi comprendre la kon adversaire yi weesu lu tax jël ko man dama rafetlu ay mbokk si làmb comprendre nga rafetlu ay ay mbokk si làmb te dañu xaw a sori côté Dakar mais yàlla may nañu ba ñu marqué suñu empreinte comprendre nga parce que mbooloo mi topp suñu gannaaw toppul sax mbër yu mag yenn yi. Hmm, loolu kon mbër yi ñu tudd làmb te duñ tudd Quench loolu mënul nekk ñu tudd dëkk yi te duñ tudd Bargny loolu mënul nekk. ñi xamu woon Bargny sax yaa tax ñu xam Bargny. waaw mais c'est normal damay ñaan yàlla déggoo lii ma la nii Sadio Mané def ba ñu xam Bambali noonu laay ñaan yàlla def ba ñu xam biir Bargny fii ba ñu xam Bargny mais sa digganteeg double moteur lan la laaj sa digganteeg double moteur gis nañ ko mu nekk mbër moo xamante ne day jàpp ba mu bëri mu liggéey moom tamit buy jóg euh, waa plateau ñëppay topp ci ginnaawam sa digganteeg moom lan la waaj. waaw mais sant yàlla moom na waaj rek comprendre nga moom si côté dama siy wax tuuti rek parce que li ma si waroon wax wax nañ ko si internet yi instant yi des mooy double moteur lu ma ngay ñaanal mooy mu am jàmm ma am jàmm ay fan sa am am jàmm su may fan sa am ma ndam a fonk samay waaw lu mu laaj rek ama làmb moom mooy làmb lañ wax comprendre nga làmb lañ wax moom daal lu mu indi incha allah dina ko dafa mel ni xaw na yokk poids gis nga ko est-ce que. loolu day sant yàlla la poids bi mu yokk loolu sant yàlla laay wax comprendre du ma asi moom moom na dolliwaat sax laay wax. Hmm. waaw comprendre. mu doolee moo lay gën a. déggoo ni ma la lu mu metti métti métti ma marché bouchon yi jàll. instant bi naka ngi si état de forme bi sa état de forme kenn jàppale ci musique. <laughs> musique musique ma si wax sax musique moom. man damay laajte rek ñaanu xale yi rek yu ndaw yi barki sëñ Babacar. des fois a diis a. barki sëriñ Babacar chaque bu ma yeewoo gën a sawar man ñaanu xale yi barki sëriñ Babacar mën na ma téye si làmb dégg waxuma la mag ñi de ñaanu xale yi kese kese mën na ma téye si làmb lan ngay wax say supporters yi nga xamante ni dañuy xaar Quench boo jógee ñu jóg duñ la bàyyi benn yoon nga wéet lan nga leen di wax. waaw mooy di leen sant rek di leen wax ne ne ñoom daa am rek lu ma leen di dénk mooy dañ na fan si Quench ñoo gën a yaru si fan say hmm. ma leen di dénk kon lii gars di def stade di buddi ay chaise di di sànni ay chaise maa leen di ñaan ñoom liñ leen xamee parce que dañ ñëw ba Bargny fii fal ma ambassadeur de la no violence ñu fal ma ko ba nii nii nii nii man lañ ko fal ñu faloon boo ñaa ba nii raaya gaa ngi si man maa nga dul tiitaroo rek. comprendre kon bu ñu falee ambassadeur non violence aw ma am supporter boo xam ne day day indi sax lu jege violence comprendre nga fan su coins dañu war a fekk kuy def ñu jëlee la si parce que ñun loolu la ñu xamee ñun bari ñi macha allah yàlla dimbali ba yenn yi sax mooy loolu yala daal suturaal nañu bu baax dëkk bi fii booy yaru nañu na nañu fi ñu teg seen tànk te bu ñëwee stade si yar ak teggin la ñu ñëwee yàlla mooy ñu ñëw si yar ak teggin man daal mooy seen yaram bu mu tàng tàng tàng ba kenn ni jël si ab siis loolu laa leen di ñaan ñoom sumay may fans parce que ñoom man aw seen fay comprendre man ni ni ni may def ba ba ñu kontaan ñoom nañu def noonu man ba ma kontaan parce que ñoom lu ñu bëgg rek man maa ngi si bu laajee su ma bakken bii ma joxe ko ngir ñoom dinaa ko joxe. te di ko joxe ci combat. waaw déggoo li ma laa bu laajee su ma bakken bii ma joxe ka dinaa ko joxe ngir ñoom parce que bëgg dafa métti te ki la bëgg yow amoo ak fayam. succès bi nee na trop coince coince coince foo romb mais ki nga xam ne boo xewlee mu bàyyi léppam bàyyi liggéeyam bàyyi léppam topp la jënd tisetam jënd tikeem yëpp topp sa ginnaaw kooku amoo fayam te xaalis bi yow yaa koy lekk comprendre au tamit dañuy yëkkatiwaat seen xaalis yi la jox kon man su may fan sa aw ma seen fay te su may fan sa man aw ma ay fan ay frère la am man samay fan sa kenn ku si ne mën naa jaar sa tur li ñuy bëri bëri yëpp kenn ku ne mën naa jaar sa comprendre man ay rakk laa am ay mag ay ndijaay comprendre man sumay may fan sa déggoo li ma la ñëpp xam naa leen comprendre moo tax man dëkk bi fii tuuti ma fi du ma dox sa biir Bargny bay xalaat parce que man xam naa suma ma dëkk fi ñu ma teg te xam naa dëkk bi fi ñu toll si man comprendre dëkk bi desalatuñu ma dara man maa leen desal te incha allahu rabi yàlla dinañu may ndam bu sedd guy incha ah. euh, ngay wax Baba Diaw moom mi nga xamante ne xale la nekk gan ci làmb bi mooy combat maanaam bi mu dugg see ci làmb ba léegi bi mooy combat bi gën a mag bi mu tëgg lan ngay wax Baba Diaw ak lan nga koy wax mu waajee ko bis waaw di nga wax mu préparé làmbaam te xam ne ñun ñu ngi si parce que réussir am mooy ñu réussir ñun réussir am mooy suñu réussir te ñun moom man waxuma si beneen côté mbër mi de mais man laa wax si sama côté lépp lu ma fay dinaa dinaa ko delloowaat xaw ma nag si côté mbër male mais man Baba jaw lépp lu ma fay dinaa ko duble plus waaw xaw ma nag beneen mbër ma quoi comprendre man sama bopp laa xam waaw. boo amee kàddu yu nga sant gërëm. waaw sant waa Bargny rek sant suma staff sant suma santa encadrement bar mbokki santa sant magi Bargny yi xam ne dañ may ñaanal comprendre nga ma sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla bàyyi leen suñu kanam. sant fukki penc yee ñaari te di leen woo comprendre nga di woo autorité yi bari ñi yëpp limu ma kii bàyyi kii parce que koo fi limul turam soppeem ñëw si moom naka diw day lim na ñëpp mais liw na limu ma ken autorité yi bari ñi yëpp maa ngi leen di woo amul kii amul kële muy cat ba cat booba ba génn ñoom ñëpp maa leen di woo di woo fukki penc yee ñaari di woo képp kuy suma fan sa a ah, foo mën a ne di woo waa diaspora bi yëpp surtout Bargny diaspora Bargny natal Bargny teggin di bar Bargny waay yi nga xam ne dañ nekk si diaspora bi di liggéey ma leen di ñaanal yaa na seen liggéey am barke ba ñi amul kayit am kayit ba ñibbise si jàmm seen njaboot comprendre di woo pour tout la am moon di ga may suma doom day ba rëgay ñaaware père ñaaware <laughs> ñoom xam ma mënul ñàkk parce que chaque instant ñu si YouTube bi di xool comprendre nga maa ñëpp di bëgg ñëpp Bargny man aw seen fay te guddi guddi Bargny laa guddi gur ji Bargny laa jëm sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp 100 pour 100 Coins nag man mënu ma leen fay. 100 pour 100 Coins ñoo mënu ma leen fay sant bi nag am na fu mu commencé mais amul fu mu yem waaw. rendez-vous bi kañ la. le 7 novembre di woo ñëpp. Bargny gis ngeen mbokk yi nii leen leen ko defalee ci Wassare Lamb di leen jox dig daje beneen yoon yeneen mbër jërë ngeen jëf.